Heavy Mess. nopp dalooti xibaaru bës tàmbaleeti waxoon naa leen ko dee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 bëgg a tëdd sax boo mënee nelaw nelawal sa waay cousin bi dañ koo jox xaalisu courant bi mu waroon fayee toll ci cinquante quatre mille cousin bi daal di koy réeral naka noonu ci la asem ba méree dal di boma cousin bi ci comptoiru boutique bi ba sa waay jaare fa ñàkk bakkanam ay waay baaxul asem yoon mujj na koo teg loxo ñu placé ko mandat de dépôt depuis le 21 janvier 2022 tribunal flagrant délit bu ndakaaru nag mi ngi koy toppee li ñu naan coup mortel jomale ko ci cousin bi le 15 février nag la atte bi di daanu ay waay moo tax ma ne fin na baaxul moo tax ma ne jàngoro ji dal réew mi moo gën a grave corona laa wax Sénégal nag diggante baay ak doom liñ ci xamoon mooy cofeel waaye léegi senegal baay yóbbu na doom police doom yóbbu na baay police violence ak menace de mort moo yóbbu baay bi ak doom ji ca yoon tey baay bi mu ngi wuyoo turu MTS doom ji ji di wuyoo ci turu ms baay bi nee ñu am na juróomi jabar ak ñaar fukki doom ak ñett baay bi nag dëkkul woon ak doom ji ci këram ndax doom ji kër nijaayam la demoon dëkki nijaay ji di rakki baay bi nee ñu sax génn na àdduna li indi coow li nag mts di baay bi dafa dem kër rakk ji di nijaayu doom ji te génn àddina seeti doom ji naka bi ko doom ji gisee rek nuyu ko ci la jógee romb dem dem duggi néegam toog yëf yi nee nañu boobu mu naka noonu nag ci la ko baay bi jógee dem topp ba ci biir néegam dal di koy tàmbalee duma ba noppi daal di koy menacé ne ko fi ak lekku ma say fan duma noppalu <laughs> yëpp naa def nag ci kanamu yoon tamit doom di confirmer ne ne baay bi daf ko doon menacé <laughs> waaye ma ne nag loolu yàgg na ci de di wax ak sa doom ne ko dinaa la rey ah fekk bëgg koo def dara yàgg na réew mi doom ji tamit ci kanamu yoon nee baay bi daf ko weq weq yu ci ndigg li ak ci baat bi ne lu tax ngay nekk sa kër nijaay te man ma am muy dëgg nag loolu nag bi mu nee na waa kër gi ñoo mujj intervenir daal di leen a atte waaye terewul baay bi dem dellu si indaale barre de fer ëpp naa def waaye ne fokk dana ko rey baay bi tamit ci kanamu yoon wax na dee nee bu mu yegg see xale bi def ko romb nuyu ko ma ne ko neexul ci xol nag sa doom romb la nuyuwu la naka noonu ñeeti la ko toppee di ko laaj lu tax mu yàpp ko dëkkee ko yóbbante ay tifaaray saaga nday nee na comme xam ne ne da koo diggoon ay duma ci la ko doom gi ne man mësuma laa yóbbantey saaga nday waaye la yooyu baay bi la yëpp ci kanamu yoon terewul defeere nañ ko di ko toppee lu ñu naan violence voie de fait ak menace de mort tey mim réew moo tax ma ne jàngoro ji dal réew mi moo gën a graaw corona laa wax ñaari jeeg yi ay xarit lañu kenn ki di wuyoo ci turu des di ci turu RB ñoom ñaar nag dañoo mbiicoo mballoo fi mu ne duñu jaarop taal li ko indi dafa gis ay vidéo ak ay photo yu bii di RB ma ne ay vidéo photo yu doy war la fekk ci portable jëkkëram ëskëy say vidéo xarit ci sa portable jëkkër ay neexu la muñ nag fam bi nag bi mu gisee vidéo xarit bi ci portable jëkkëram daf ko transféré ci portable am ndaw ci saa ci la woo xarit bi dal di koy menacé ne ko soo bàyyiwul sama jëkkër dinaa jël vidéo yi ak photo yi tas ko ci réseaux sociaux yi ba noppi nag envoyé ko Adamo ma ne waa jooju dey moom ab kuti buy tas vidéo jaamur yi ndaw say wax de te ci kanamu yoon la ko doon waxee nee na loolu yëpp nag bi mu koy def daf doon tiital xarit bi rek ngir mu bàyyi jëkkëram ndax fam bi ne avant moom marié ak jëkkëram bii di wuyoo ci turu Jean El moom ak xaritam bii di RB ay relation yu rafet la ñu amoon ko takkee ba léegi xaritam bii di RB ci la ko tàmbalee indil ay problème di ko fiire ak jëkkëram waay nee na ci siisu boobu xaritam bi di siisu xarit bi dem na ba envoyé ko ay foto yu doy waar naan ko xoolal ni ma jekkeek ni ma taaro te it nee na xaritam bii di RBoy te envoyé ay vidéo ak ay photo yu ñaaw jëkkëram ci ay détails yu ndaw rek la tasee ak jëkkëram moom ndax amoon na jëkkër ne bi mu tasee ak jëkkëram jooju ci la nag singalee borom këram di ko envoyé ay vidéo ak ay photo hmm, ma nag yii nag xam nga lan la génn bu yàgg ci suuf la génn bu yàgg boo xam ne nii xarit bi ak jëkkër ji kenn waxu ko <laughs> ay waay suñu réew mi dana tas waay xam nga ne jigéen toog gis ay vidéo ak ay foto ci portable yu jëkkëram vidéo yaak photo ya ab xaritam la ay lool neexul ci xol waay mu doonoon seen xibaaru buzz dig daje samedi ci yeneen xibaaru buzz